boo xamante ne tëmbee woon na fii ci teeru bi yaraax ci début bi boobu mu tëmboon nattu 113 kilomètres yàlla dogaloon teeru mu waroon teer euh, jeudi normalement plus tard euh, zéro heure war na teer jeudi mais yàlla dogal teeru vendredi nag demoon nañ doon def première pas dem seeti ko yàlla dogal na gisuñu ko démb aussi tamit ñii demoon nañ seeti ko ñu yóbboon ñaari kanam bu selpe yaayu ànd yàlla dogal na tamit gisuñu ko si géej dañ fanaan ñu ngi nii soog a ñëw temps géej gi nekk xam na ne ngelaw na sedd na gaal bu ndaw la boo xamante ne nii ñetti nit ñoo ci nekkoon ñu nekkoon ay doomu tubaab jalaaw ñu ngi fii yaraax nekk fi yàgg fi lool te moo di ku nekk xam na ne benn la yaraax tubaab jalaaw mbuur ak dara fépp benn la comme fii lañ tëmbee si dëkk bi tamit waa yaraax tamit defoon si seen taxawaay xaar yu si kenn suñu kilifa yëpp a nii ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu pes bi yaraax ñëpp ñu ngi nii taxaw vraiment taxaw nañ si lu ñu mën génn nañ seen doole génn seen i alal génn seen i vraiment kenn nelawul yarax kenn nelawul tubaab jalaaw tamit kenn nelawul képp koo xam ne kuréel kuréel nga nekk ci wàllu napp gi fii si Sénégal fu mu toll nii nelawoo yaa ngi ciy jàpp actuellement nag ñun li ñu war a def yëpp def nañ ko waaye tamit du ñu tàyyi du ñu sonn dinañ continuer di def ay action mais fu mu toll nii dañuy interpeller état ministre de la pêche président de la république Macky ak képp koo xam ne nekk nga ci wàllu napp gi te ŋànk ko ñu ngi lay interpeller en même ñu jóg ñu fexe avion bi na jóg ñu sàkku marine bi na génn aussi ñu def ay patriote si géej gi ñu xool ko parce que fii marine mën a dem avion man fa dem gaalu dooce mënu fa dem actuellement ak ngelaw lii te boto bi fii foofu ak Dakar mu ngi nekk 113 kilomètres te ñun si suñu xam-xam bu gàtt ànd seeg suñuy magi mool yi si calcul bi ñuy def boo demee ba ci boto ba war nga mën a dawaat 300 kilomètres ci biir géej wala 200 kilomètres ci biir géej pour mën a xool euh, ñoo ñu xam ne suñu mbokk yooyu xam ne dañoo réer te ñetti nit lañu kon fu mu toll nii man nañ ne ay boto rek ñoom ñoo mën a jóg dem seeti leen wala avion kon ñu ngi sàkku si état bi di interpeller président de la république di interpeller ministre de la pêche lépp loo xam ne ay matuwaay la fii si Sénégal nañu jóg ñu dem seetal ñu suñu njaboot yooyu parce que actuellement wax dëgg yàlla sonn nañ jaaxle nañ am nañ naxar am nañ tiis mais lépp ñu ngi ko teg ci loxol yàlla di def li ñu war a kon ñu ngi interpeller dara képp koo xam ne autorité nga mën nga si jàpp nga jóg seet lañu suñu njaboot yooyu jox suñu kilifa yi nga xamante ne nii ñu ngi fii nekk ci wàllu pêche ñi nga xam ne ñoom ñoo demoon ñu sànni si ay kàddu jërë salaamaaleykum maay présenté wu tudd Assane Dia doon wax léegi mooy Bara Sylla mooy président association des jeunes pêcheurs de Yaraax vraiment li mu wax lépp loolu moo am ñun def nañ ba ñu ngi àgg nañ au terme de nos mu nekk nii dañu jaaxle na ñu ngi interpellé état bi monsieur le ministre de la pêche ñu ngi lay interpellé de poste bu Yaraax ñu ngi koy interpellé vraiment lii fu nekk nii marine bi rek moo ci des ak hélicoptère parce que fu mu nekk nii gaal yi mënuñu génne ndax mauvais temps bi ñi demoon ñu ngi nii taxaw def nañ 72 heures ci biir géej gi ñu leen gis def nañ 72 heures ka bidon yaa ngi ne leen taxaw bu ngeen gisoon sol nañ lu ba 1 million essence dem nañ ñaari yoon mënuñu leen gis donc marine bi rek moo ci mën dara marine bi génne hélicoptère bi naaw tiim gaal gi yàlla def mu gis ko ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla niital xaa ma joxe ñi nga xam ne ñoo demoon def ci géej te gisuñu leen ñu xool coono yi ñu daj ñu wax leen asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi leen di nuyu di leen ziare. su ma la wax dara damay gërëm waa Yarakh. notamment damay gërëm waa Yarakh léegi bu ñëwee suñu kaw. ñu ñëw fekk waa bépp macha allah. parce bu ñëwee ba léegi ñoom laa gis muy taxaw di dugal génne di dugal di ngir lan sama rakk ji nekk muy nekk lu nekk am na ko defalee duñ ko defal wax dëgg yàlla gis naa taxaay bi nga taw macha allah lii nag mën na waroon waa Dóor Jalaaw mais Dóor Jalaaw ak Yarax benn bu ñu na ngir ñu bu amee suñu kaw la dal ñu demee suñu kaw ñu bokk ak waa dëgg yàlla barka dem ba léegi ñu ngi gaal barka dem am na gaal dem gisu ko ñu koy ñu koy ci taxoon ci léegi moom moo yëkkati ñaari kono jox ñu soxla essence suñu benn dërëm benn dërëm waa waa Jula Diouf ñoom ñoo liggéey ci loolu teg ko suñu loxo soxla ñaari ñaan ñaari kii nan daal ñaari kolom ñu farias ko ñu ko fariasé man maa yóbbu genn benn bi ci wax dëgg yàlla li ñu waroon nañ bi ñu jóge fii dem gis nga rek mais dem nañ wax dëgg yàlla fu nekk dugg fu nekk dugal xale nekk xale yu jàmbaar allah lu ma leen wax rek ñu ne ma gannaaw loo loo wax rek baax na loo def baax na waaw ba léegi gaal gi seetuñu ko fi ñu taxaw fi ñu nekk seet dem nañu bopp am bu nekk foofu noonu bato boobu fa lañ a toog bu ñu fa taxawee ñu waxtaan bu mu yàgg ma ne nan taraabi waat bu ñu saree dañu gën a am taxaw guddi gi yëpp dañ ko wër allah guddi gi yëpp dañ ko lii nag su fekkee am na te amoon na am na fi jaar na fi mariñ bi nga xamante moo nekk suñu doole lépp moom la wax premier jour ba mu amee si la waroon a sol aw daalam dem géej gi fi mu toll nii wax dëgg yàlla man de fi ma toog la wax ne bii bët gëmmu ma xam ne yax ngi law képp ku dugg si géej gi da nga xam ne lii gaal waru si wax dëgg yàlla ngelaw di fa nekk gaal waru dugg si dugg parce que tan bi nekk nekkal wax kenn na ñaanu yàlla nag gaal yaa ngi géej mais yi mel ni ñoo indi problème parce que géej day ngelaw nga forcé dem si ñun démb am nañu problème boo xamante ne yàlla ndi ko toujours seeti gaal la see dal yàlla na xamante ne am na benn sol buy sol bu ah, ma may nekk moo dem nañ si jàmm nga xamante ne mooñ taxoon dem ñu ngi wallu ak waaye man ci nekk mu man si teg loo xam mooyaan bu mu si a am ñu jàppal ñu njaboot la nag samay jàppal la ñoom ñëpp samay jàppal la ñu maa ngi ñaan yàlla yal na yàlla nit leen yal na yàlla nit leen lii wax dëgg yàlla gaal ko am si juróom-benni fan wala juróomi fan gisoo leen mais marine bi nag su fekkente ne moom moo fi nekk noonu dimbali ci yàlla tax mu taxaw mu dem wërël ñu gaal bu fekkente ne yàlla dogal na mu gis ko ñu yàlla mais dem bi moom moo ko war na génn wax ñu jàppale mool yi mool yi sonn nañu mool yi sonn gi ñu sonn wala aussi mën ñu koy mën ñu ko jooytu fenn waaw am na laa xam ne su fekkee am na nag dañ koy bàyyi suñu borom rek ñu sant wa yàlla ñu gërëm bu baax a baax macha allah yal na yàlla fay ko asalaamaaleykum mbokk Sénégal ñu ngi leen di nuyu leen ku ci nekk di wax santam ak di ma sow suñu mbokk yi nga xamante ni dañuy am gis bi tamit suñu kaw ñun yëpp vraiment cant ak gërëm la waa di lépp ci yow ci nekk sa bopp rek nga ko defal waaw li nga tëw daal mooy état Sénégal ñun war na bàyyi xel pêche euh, artisanale jafe-jafe yi chaque année ñun ñoo ngi koy dund bu ñu juumul daaw rek caaree lu mel ni am na fa am ñoo xam ne liy jàll la ñu leen doon seeti sax ci yàq seen bakkan te nag bu dee si réewu tubaab bi benn bakkan doomu aadama bu nekkee ci lu ñu xamul ñoom duñ am jàmm seen moyen yëpp dinañ ko jël pour trouver kooku xam ci lu mu nekk mais ñun xamuñu si lan la ñu nekk lu toll nii Sénégal nga xam ne bés artisanat daf koy yaatu toujours ñu am jafe-jafe yu mel ni ñu ñàkk suñuy bakkan te autorité duñu leen gis te urgence dafa war a gaaw urgence bu ñu koy wax dafa war a gaaw bu ñu leen nit am na problème ci géej ñi war a jug dañuy war a jug muy navire ak avion dafa war a jóg ànd ak ñi nga xam ne ñooy bés artisanat mu wóor ñu ñun jug nañ waaye ñoom bu ñu waxee jug nañ sax doo xam ndax jug nañ te loolu du dëgg du wax ñun nag réew mi ñu nekk suñu cër bu mat a mat loolu la ñuy ñaan état bi mu taxaw ci mool yi pour surveillance bi du wér parce que mool yi de si géej bari nañ torop torop torop torop xamatuñ fu ñu jëm ñii ne def nañ seen moon yëpp wax dëgg yàlla yaraax jub nañ ak lépp képp seen kéem lay kàttan maire beeg ñëpp jàpp nañ ci ak ñëpp acteurs yi yéeg ñëpp jàpp nañ ku nekk génn nga li nga am ñu génn ñett ñaari yoon nga ñuy def ay sot gaal njëkkoon na dem ñaari korot génnaat nañ dem fanaan ci géej génn si géej dégg ngeen ñu demul géej li ñu wax nee nañ ay jafe sax am nañ gis géej yooyu nag su fekkee am na autorité war nañ jóg jox ñu seen cër ngeen baal ñu àq jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di nuyu di leen ci yàlla ci turu tubaab Jalaaw nag dañu ci suba di nekk si nga xam ay doomu tubaab jaraaw lañu te Yaraax mu mel ni tey jii say moom volontaire ci lépp kon yéen waa Yaraax ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm mbir nag li xew nii say dogalub yàlla la koy naw waaye nag ñu xamal état ñii nekk si ndox mi nii ay doomi réew mi lañu jabooti réew mii lañu état toll na foo xamante ne si géej war nañ si mën a jël ay matuwaay dooleen ñi si dugg ay doomi réew mi lañu nekkuñu fi dugal di taxawaalu dañu jox daara ji seen doole ngir lu ñu mën a andi ci tur lokk ci biir kër yi bu doon ci tali la léegi bu accident amee ñu nañ téléphoné sa bopp bi baare tali bi lan moo tax mool yi dugg ci am lool bu jafe amee ñu ne nañ xaar woote ministre nañ woote fi nañ woote fi est-ce que urgent mën na xaar est-ce que loolu urgent mën na ko xaar kon ñu ngi ñaan état ay bakken xaalis mënu koo jënd bu ñu xool fere bi ñuy fere nañu xool nañ lii ay bëkkel la ñu nekk si biir ndox mi te am nañu ay jafe-jafe teg ñi ñu bàyyi si taw amatuñu jàmm amuñu salaam noppala ko moo di nag li leen war yépp ñu ngi koy def waaye nag ñuy ñàkk sa sàkku ndimbal ci état mu dimbali ñu si lii lii fi mu toll nii say àgg na foo xamante ne fi say marine bi rek moo mën a jóg dimbali ñu si marine bi navire bi dem géej avion bi dem géej ñu dimbali ñu si ñoo ngi ñaan nag képp koo xamante ne ci say autorité nga te nga dégg suñu kàddu loo ñu mën a dimbalee ngeen dimbalee ñu ndimbal nag si fi ko borom soxlaawee ndimbal si fi ko soxlaay mooy fi mu sonnee fi jafe-jafe amee foofu lañ suñu bopp def li ñu war def yëpp ñëw ngeen doog a jóg di ñëw si ñun soxlaawu ñu ko foofu fii ñu amee problème am si jafe-jafe fii fi lañu ñu ngi leen di woon ak ñëpp di ñëpp ñi xamante ne ñu ngi si kaw di kilifa ñu ngi sàkku si yéen ñaan ñi am mayel pour dem géej ñu ngi leen di tàllal suñuy loxo di leen ñaan ngeen dimbali ñu def si seen waslu si àq te xam ne njabootu réew mi lañu ngeen baal ñu wax jéegul rek dafa am lu ma fàtte comme yàlla dogal na démb ci ay mimi euh, directeur DPSP daf ñu woowoon doon ñu wax ay information te loolu la tamit ñu jàllale ko mu xamaloon ne ne marine bi génn na euh, avion bi tamit génn na mais xawoon na am ay jafe-jafe par rapport ak fii nga xam ne moom la ngelaw di toll kilifa la tam moom moo ñu woo wax ñu loolu yoon la jàllale ko jot nañ tamit euh, inspecteur régional suñu président surveillance bi na wax nañu lu mel noonu alerté nañ boo xamante ne mu ngi si géej mais ñu ngi dolli ñaan daal état mu taxaw taxawaayam parce que ñu wax ne état taxawul mais tamit euh, jëndal naa la te li ma la jëndal gisoo ko man nit mën na si am sikki sàkk kon li ñuy sàkk mooy ñun ñi nga xam ne bu ñu amee jaaxle dañuy jóg di dem ñu wax ne ñu ngi ñuy seetal wala ñu ngi ñuy recherchel muy jaaru tamit ñuy am ay suus yu wér na xam ne kat ñii jóg nañ dem nañ kenn ku nekk si turam kilifa yi waxee noonu la demee ndax benn jaboot ngay yaay rek ngay papa rek lekkatoo naan ñëpp a ngi ci xat-xat ñëpp a ngi si cànnexe ñëpp a ngi si tiis te état dama ne la gis nga doomu aadama boo koy dee dimbal da koy teel a ci bi muy teel. waaye doo bàyyi ba jaan ji rëcc la nga doo wa topp ci tëcc bi dafa am solo ci suñu réew te dëkk bi li fi nekk yëpp bu fekkoon na moo amul kon doomu aadama du am lu ñu suturloo mënuñu fu nu aw sañu njaboot ñu am lu ñu suturloo am lu ñu lekk du am naan yaakaar lu dul géej te géej amul banxaas amul garab amul dara te siy dem risque dong la ñuy demee kon état ñu koy ñaan bés boo nga xamante ni ndog-ndog am na ci réew mi war nañoo mën a taxaw taxawaay bu rafet teel a jóg teel la wallu kooku waaye doo ko bàyyi ba nga xam ne loof na nga doo kaa dimbali loolu c'est trop tard na askan ñu jóg ñu dimbali mool yi ndax ñoom ñii sonn nañu ay doomi jàmbur lañu fii la ñuy nekk ci tefes gi fa la ñuy fanaan fa la ñuy yendu sañuy doom ñoo demoon doon leen wëri ji gisuñu dara ndax mbir mi kenn ku si nekk rek lay dal ndax ki jombul kenn ndax réer bi jombul géej gi nag dong la xale yi yaakaar te sonn nañu amuñu fenn fu ñu sukkandiku amuñu fenn foo xam ne mën nañ fa seen seen i waaju fii lañ mënam na état jóg na jàppale ñu sañu doom yi ba yàlla suñu borom bi yàlla na si yàlla def lu kawe sañu jorto ba mu feeñ ci barke Serigne Babacar si bi ñuy tàll askan wépp sañu loxo bi ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla leeral rek yàlla na yàlla suñu borom bi leeral lépp ñun ñu lekk taluñuy naan amuñu dara lu du sañu njaboot yàlla nañu yàlla suñu borom bi sàng dinaa gërëm yàlla bu ñaan yàlla dégg yàlla nañu yàlla suñu borom bi sokkoor loolu asamaan suuf ba ñun ñu gis si